alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi di bàyyi xel seen télévision Mouslih TV ñu ngi leen di ñaanal jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem sunu borom subhaanahu wa taala defal leen ko defal ko seen njaboot defal ko képp ku naan ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun di abonné ci chaîne bi di partager li nga xam ne mooy vidéo yi mbokk yi ñu ngi bëgg a waxtaan ak yéen ci tuub mooy la repentance rujo mooy doomu aadama bi jëloon yoon woo xam ne bu ko continuer dafay alku walla mu sànku mu delluwaat gannaaw ngir jëli yoon woo xam ne su ko jëlee du sanqu bu koy jëlee du alku loolu mooy tuub ñun ñépp dañu war a maase tuub tuub amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw amul chef amul gidd amul koo mën a xalaat dafa war a tuub ndax yàlla moo ne wax ne tuubu ilallahi jamian ayyuhal mu'minuun képp koo xam ne gëm nga yàlla te li mu diggal nga koy def li mu la teree nga di ko moytu danga nga war a tuub ak martaba boo mën a am da nga war a tuub léegi nag kenn ku nekk li nga war a tuub dafay wuute sag moroom li mu war a tuub li waral loolu mooy bàkkaar yi ñooy wuute am na koo xam ne bàkkaaram mooy jëw am na koo xam ne daa bàkkaaram mooy njaaloo am na koo xam ne sàcc koo xam ne triyande am na koo xam ne wuruj am na koo xam ne wor am na koo xam ne lekk alalu njirim am na koo xam ne soxor ah am na koo xam ne iñaan am na koo xam ne fiiraange goo xam ne dafay ba koy yóbbee ba muy soode wu jëm wala muy soode boroom këram ñoo xam ne seen bàkkaar mooy di maltraiter seen soxna di maltraité seen njaboot ca mbokk yi buñ doon lim xeetu bàkkaar yi war a tuub duñ fi jóge waaye kenn ku nekk am nga ci épidémie boo xam ne moo nekk ci yow am na koo xam ne boole na ñaari feebar wala ñetti feebar wala ñeenti feebar mooy yàlla kon kenn ku nekk rek symptômes yi ngay wone mooy permettre sunu borom subhaanahu wa taala daal di la prescrire prescrire benn remède boo xam ne dafay adéquat par rapport ak symptômes yi nga xam ne moo nekk ci sa yaram mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ni wallahi summa wallahi ñi ngi def bàkkaar yoo xam ne xam nañ ne bàkkaar la te kenn forcé wuñ ci waaye topp sunu bakkan rek topp sunu bakkan rek rek rek rek rek moo ñu ko yóbbee te mbokk yi bu fekkee dañu dee ci loolu yàlla du ñu jégal de ndax allah subhanahu wa taala dafa wax ci alquran baada auzu billahi min ashaytan rajim ndax innama tawbatu ala allahi lilladina yamaluuna suuan bi jahalatin summa yatuubuuna min qaribin fa ulaayika yatuubu allahu alayhim wa kaana allahu aliman xakima sadaqa allahu alazim yàlla nee na ñi may nangul seen tuub ñi may nangul seen tuub mooy gaa ña nga xam ne bu ñu jëfee lu bon mooy bàkkaar te bañ koy jëf li ci ëpp xamuñu ko woon mbokk yi man mii di wax maa ngi def bàkkaar yoo xam ne xam naa ko <laughs> yow mii wallahi ni ma ko xamee noonu nga xamee ne yaa ngi def ay bàkkaar yoo xam ne xam nga ko yàlla nee na nag nañu jéggul nañu jéggalu tuub jëm ci sunu borom subhanahu wa taala ñaata ci ay àq lañ yoreel doomu aadama yi te delloowuñ leen ko te am kàttanu delloo leen ko ñaata ci ay nit lañ lañu tiriande ñaata nit lañu wor ñaata nit lañuy wax lu dul dëgg ñaata der lañu tilimal ñaata ci ay der lañuy tilimal te li si gën a metti mooy dangay gis ñoo xam ne li ñu yor ci ay bàkkaar xamuñu nu mu toll ñuy wëlbatiku si sikku nit ñi rek sikku nit ñi boo demee tës nga dem xalaas nga dem ci jomet ñoom ñëpp ñu ngi wax ay sikku jàmbur te duñu wax seen sikk loo fi nettali yéen laa wax lu ngeen fi nettali mi ngi seen kër yi seen tànt yi seen yaay yi seen pàpp yi seen jabar yi seen doom yi seen cousin yi seen cousine yi ñu ngi def ay njombete te du ngeen ko def jomet du ngeen ko def xalaas du ngeen ko def tës est que loolu mooy mandute waaye tës leen seen bopp waaye xalaas leen seen bopp jomet leen seen bopp man dinaa leen duut baaraam te pare naa li ngeen mun a wax wax leen man laa wax je prends toutes mes responsabilités tuub leen ngeen jëm ci yàlla te bàyyi sikku jàmbur yi ngeen di siiwal te ngeen lijjanti seen sikku bopp yéen ñoo ñëpp laa wax kenn ku ci ne yaa ngi sikk yoo xam ne suñ ko yee yenoon benn bato attanu ko ngeen ne ci sikku jàmbur yi suba ngoon tuub leen jëm ci borom bi subhaanahu wa taala nii ñun ñii nga xam ne am nañu ay sikk ñun tam ñu tuub jëm ci sunu borom subhaanahu wa taala yàlla nee na ñi may nangul seen tuub mooy ñi def bàkkaar ñi tooñ seen bopp tooñ seen moroom ñu dellu si yàlla sunu borom subhaanahu wa taala te tuub gi nag du yéex de doo xaar naan damay bàyyi ba am cent mille ba deux cent mille wala damay bàyyi ba am beneen émission bàyyi émission bi damay bàyyi ba am beneen liggéey ndax su ma bàyyee tës wala leneen wala leneen su ma ko bàyyi dootuma am yàlla ne mukk boo defee noonu du ma nangu sa tuub boo ko defee laa wax du ma ko nangu ndax summa yatubuuna min qaribin la yàlla wax nee na gannaaw bi ñu defee bàkkaar yooyu ñu tuub tuub gu gaaw def nga loo xam ne neexul yàlla tuubal ci saa si wax nga ci ay njombe jàmbur ci ay sikku jàmbur ci ay tësu jàmbur te xam nga ne wallahi say tës bu fekkoon génnee nañ ko nga génn réew mi tuubal waaye jëm ci yàlla tuubal jëm ci yàlla ndax yàlla sunu borom subhaanahu wa bés bu ñu defee loolu wallahi al azim xiif ñàkk insécurité bi ñuy jooy ci Sénégal di ko jooy ci àdduna bi dafay daal di deñ dafay daldi di deñ ndax wa kaana allahu yàlla nee na dama nekkoon te dama nekk te dinaa wéy di nekk koo xam ne alim laa yow mi di tës nit ñi yow mi di jomet nit ñi yow mi di xalaas nit ñi yow mi nga xam ne yaa ngi ci réseau sociaux yi di wuññi ay awra yi jàmbur yàlla nee na xam naa say awra yépp boo tuubul man yàlla dinaa xëy bés ne bàcc li nga doon def di ko nëbb yépp yàlla nee na may xëy weer la est que yéen bëgg ngeen weeru mais bëggu leen weeru pourquoi ngeen di weer ñeneen yàlla nee na xakim laa xakim bi mu nekk mooy nit ki def na njombe def na tës def na xalaas def na jomet wala def na tooxi doona diggante ak yàlla la bu tuubee diggante ak yàlla bàkkaar bi wàcc na ko bu dee li mu yore leen doomu aadama mu delloo ko ko yàlla da koy jéggal kon pourquoi ñun ñëpp du ñu tuubandoo jëm ci yàlla nga koo xam ne bi mu juddoo ba léegi mi ngi ci ndagar wàlle am na koo xam ne bi mu juddoo ba léegi du julli te nee na julli la du julli moo tax bi ñuy wax dañuy tëj jàkk yi ma ne leen waaye yéen wax leen li ngeen war a wax am na ñoo xam ne Sénégal du ñu julli yéen du ngeen ko wax du julli tisbaar tàkkusaan timis gee suba du ko julli ñu tëj jàkk waaye terewuñu julli ñu bëgg ñun ñëpp naan lu tax ñu tëj jàkk ji dañuy xeex diine ji dañ mais ñun ñooy xeex diine ji ñun ñi nga xam ne jàkk day tijjeeku duñ ci dem xayaala yàlla day jot duñu julli <laughs> moo tax Sénégal dafa nekk dëkk bu spécial vraiment vraiment dëkk bu spécial la ah dëkk bu spécial moo tax ñu naan ma waxal jàkk ji waxal may leen du ma wax parce que du ma wax li ñu war a wax mi ngi fi ne xoola ne xuus kenn du wax kenn du wax kenn du wax nag soo waxee ñu dangay xeex diine yi dangay xeex tarixa dangay xeex association dangay xeex looy xeex xeexoo kenn dëgg yàllaa ko moom dëgg alalu yàlla la kenn du ko dëggaate man mi di wax am na amay sikk am naa ko de maa ngi fexe mu mu mu saafaraw moo tax yu bari du ma ci dugg yu bari du ma ci dugg di pointer de doigt ay personnes wala benn communauté duma ko def mais de façon générale dinaa wax li ma war a wax mooy ne Sénégal nañu bàyyi bàkkaar nañu bàyyi mooy yàlla gu fës gi sàngara bi da ngay toog ci mbedd bi di ko naan kenn du la tëj day yàq sa xel day yàq sa diine waaye boo laalee yàmbaa ñu ne dañ lay tëj ndax yàmbaa lan la dañ ko dañ ko lan dañ ko criminaliser te pourtant yàlla bi muy araamal yàmbaa ak sàngara la boore araamal waaye ñun ñu ne non yàlla dafa araamal sàngara ñun ñu ne dagan na ñu jox la carte ne la demal nga jaay utal bistro ñu jox la récépissé ngay jaay waaye yàmbaa ñun ara araamal nan ko kon araamal nan ko kon ñun kan la ñu gëm yàlla la ñu gëm wala constitution la ñu gëm wala code penal la ñu gëm wala lan la ñu gëm kon nañu tuub loolu mooy solution bi nañu tuub da ngay gis ñoo xam ne amatuñ lu ñu lekk ñoo xam ne amatuñ lu ñu naan bëri yalwaankat ngir lan ñàkk moo tasaaroo ci réew mi te li ko waral du lenn lu lenn du lenn lu dul ñenn ñi yor àqu jàmbur yi bañ koo delloo. ma ne booy paasi permis lu ñu la wax ci code de la nga respecté ko panneau bii lan la nga ne pano bi stationnement interdit. lii ban xeetu panneau la nga ne bii panneau d'obligation la bii panneau d'interdiction la lii lan la nga ne lii voie secondaire la lii lan la nga ne lii voie prioritaire la ñépp a koy respecté waaye bu ñu ñëwee ci tali bi nag kenn ku ne di def code de ma route code de route mooy feu rouge nga romb ko ñu wax nga saaga <laughs> code de ma route a ngi noonu code de la mooy nga yor sa tata beneen tata ne sa ginnaaw nga taxaw ci diggu tali bi ngir mu bañ laa romb loolay code de waaye bu fekkee yow kenn ne ci tali bi ngay nekk ab tata di daw ndànk dangay ngay daw ndànk sa yoon newu ci ñu yaakaar ne oto bi dafa paan ngay raam di raam di raam yaa ngi lekk axu jaam yi jël nga seen alal pour yóbbu leen ci yóbbin wu gaaw ñoom loolu lañu bëggoon mais nga jël seen alal di leen lor ngir lan mooy dangay ngay tardel seeni ay yëngatu loolay code d'Amarut mbokk yi tuub dafa jot ma ne foo dugg foo dugg ci Sénégal di fa gis loo xam ne naqari na yàlla te yàlla dénk na kàddu ñoo xam ne ñoo ne ci barab yooyu mais duñ ko tere ndax li ëpp ci ñun dañuy raalante gannaaw kenn ku nekk rek da ngay fexe sa morom kontaan ci yow doonte dafay def lu naqari yàlla waaye na kontaan ci yow rek kenn ku ne yaa ngi yaakaar ne waa ji soo ko waxee dëgg lii ma doon dimbalee dootu ko jox ana yàlla ana allah subhanahu wa taala kon nañu tuub tuub mooy caabi jii tax yàlla wàcce ay xéwélam tuub mooy tax yàlla bu meroon ba indi fi coronavirus ñu tuub yàlla jëlee ko fi tuub mooy tax jànq ji nga xam ne toll nañ ci takk yàlla dimbili góor ñoo xam ne toll nañ ci takk ñoo am lu ñu takkee tuub moom mooy waral ki sëy am problème mu doom yàlla dimbali ko may ko doom tuub moom mooy waral ki tukki am problème wu ay këyit pour ñibbisi wala toog ca dëkk ba yàlla yombalal ko ko du tax ma ne lool mooy tuub mooy bunt bi nga xam ne mooy tijj bépp buntu xewel yoo xam ne suñu borom subhaanahu wa tëjoon na ko ngir ay bàkkaar incha allahu rabbi suñu beneen jotaay dinañ leen wax lu tax ñu wax leen tuub mooy solution yu lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp célibataire yu jigéen yi célibataire yu góor yi ñi bëgg a tukki ñi bëgg a alal ñi seen liggéey yàqu bu ñu bëggee xam fan la ñuy jaar ngir yàlla dimbali leen ba mbir mi soppeeku ci jëm ci xaal boo xam ne moo gën bi ñu newoon na ngeen ñu toog suñu prochaine vidéo di ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu jàmm defal leen ko mais ñu tuub boo xam ne tuub gu dëggu la mooy ne tuub nañu jëm ci suñu borom te li ñu defoon ba tuub ko incha allahu rabbi duñ ci delluwaat hasa wa sallallahu ala nabiina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu